salaam bikum réewum Sénégal ak réewum turki xaatim nañu déggoo juróom-ñaari accord le soleil yéen kaay ñu ko xamal Erdogan njiiti réewu turki mi ngi xamal ngan Sénégal ni ki démb si du quotidien ne la ñu xaatim mooy wane na ñaari réew yi seen diggante ra tax na lañ déggoo nag mooy jëflante ci wàllu njàng mi ak njàngale mi wàllu tàggat yaram wàllu courant njënd ak njaay ak yeneen yi ni mel yéen kaay bi ne njiiti réew Macky Sall gërëm na Erdogan rafetlu taxawaayu réewum turki ci jàppale réew réewum Sénégal rawatina seen société yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi lépp lu ñu digoon def nañ ko ci anam gu mucc ayib yow seetal aéroport Blaise Diagne Dakar Arena ak yeneen société turque yi ñoo ko fi defar la Soleil yéen a kaay nañ njiit réew Macky Sall tamit sàkk na ci turki ñu dugal seen loxo ci wàllu gerte gi si Sénégal di ko jënd ak diwlin bi la ñuy waxtaane ñoom ñaari njiit réew yi mooy fitna ja am ci réewum Libi Erdogan nag nee na li jënti ko nag du yomb waaye na ci ñëpp dugal seen loxo laas yéen a kaay na njiit réew wàllu fer bi jox na ko réewum Sonko ak Pierre Goudiaby Atepa nee nañ contrat boobu wàllu feer yi Sénégal bu mu ko jox Turquie ndax duñ ci gañe dara baaxut si ñun Macky faalewut leen sax lam faale nag moom Macky mooy jàngoro ji bon jooju ñuy wax coronavirus bañ a dugg ci réew mi ba tax fi mu toll nii enquête yéen a kaay nee nañu aéroport Blaise Diagne ba frontière yi port bu Ndakaaru fépp lañ jël ay matuwaay di surveiller ko xool ngir jàngoro ji bañ fee dugg réew moom am nag Chine kilifay réewum Sénégal nee nañ fukki sénégalais ak benn fa nekk waaye amuñ benn jafe-jafe ca nekkin nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi mooy ne Guy Marius Sagna nekkinam ca kaso ga métti na de ayaw seet gàttal moo waxal boppam ci ab leetar ne fi ñu ma tëj mooy fi ñuy tëj terroriste ponkal yu mag yi te man est-ce que terroriste laa xeexal sama askan dañ wàññi courant bi sama dossier ñu di ko yéexal faala wuñ ma di fayantoo ak man waaye li ma bëgg makki xam ak ñim àndal su fekkee loolu ñu may def mooy tax ma ragal wala ma deltu gannaaw ci xeexal askan wi see boo ñu tëddi nelaw de su ma génnee ci kaso gi la ma ne newoon laay continuer kàddoom yaa ngi ci les échos yéen a kaay critique yéen a kaay na forum civil fi mu toll nii kuréel yi xeex ak ak yelleefu doomu aadama ñëw nañ jàppale leen ngir ñu xeex ba Guy Marius Sagna sa kaso ga ki mel ni ku nekk ci kaso Lamine Diack tey Babacar Ba bi jiite forum justiciable ci Dakar Times nee na mbiru Lamine Diack yi complot la source ay yéen a na ko attekat yu France yi fi mu toll nii ñu ngay wër luñ ko taqalee ba mën ko teg ay daam nay leer la leer ba ne dang ni jant tu baar mooy na ca port bu Ndakaaru jàppaat nañ fa tegaat nañ fa loxo dorog bu xaaj du jeex téeméer ak ñaar fukki kilo cocaïne bu bon bi l'observateur moo ñu ko xamal le quotidien yéen a kaay na ko bato ba ñu wax Grande Nigeria fa lañ ko jàppee te même bato boobu jàppoon nañ ca ci weeru autorité yi nañ ci jël matuwaay drogue bi dugg ci réew mi bari na te du defar fa yàq rek nag l'évidence yéen a kaay di ñu xamal na xalifa général des mourides sëriñ Muntaqa Basiru Mbàkke ma ngay amal ngam ca diiwaanu Kaolack ndaa ngam niki démb la fa yegsi taalibe yoonu murit jullit ya teeru ko mbooloo mu bari rëj-rëj loo tali bi kenn amul foo jaar ngir yegg péncam sëñ Basiru ma fa la ko tedd ka nekk jamono ji taalibe yi di dem xamar seen ak siyaar li ni mel nag nekk mbégte ci mboolem kuy saalum-saalum ngan gu mag la ci ñoom ndax kilifa gu mag moo leen gane si tàggat yaram Sadio Ñang Balde ña ngay wàccee Europe ci dugal ay bi stade yéen a kaay ko xamal la mu ñu xamal moom Balla Gaye 2 mooy na du bëree ba am ñeen fukkaat ak juróom déedéet léegi tey yéen a kaay yéen a kaay bi di sunu làmb jox tontu farandoori booy ñaa deux nee na dañ leen a fay cinquante millions ngir ñu bëree ak Balla gay deux waaye nee na ñoo lànk ñoo bañ cinquante millions fa tuuti li tuutiwul bari Sénégal mooy rey gi ñuy rey doomu aadama yi xaaral ma waxaat leen bu bees tàq ayaw seetal benn taalibe bu am fukki at ak benn moom la magum daaram jël ay kuur dóor ko ba mu sedd guy dee faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca daara ba nekk ci commune bu Thiel waa Grand Place taalibe bi magum daara moo ko rey ca Linguère la xamee kon xam na beneen taalibe bu ñu rey enquête yéen a kaay naka ma wax la benn taalibe ñaar ñett fukki taalibe ak juróom-ñaar rey nañ leen Sénégal ci diggante 2017 ak léegi lu ëpp juróom benn fukki taalibe ñu méttital leen fitnaal leen fi taalibe mujj bi ñu rey Fallou Diop la tudd nee nañ yaay fa tari mokkalut magam daara ma dóor ko ba yëngatootut mu dem bàyyi ko fa bi mu delsee fekk mu dee fekk a kaay ne tamit xale bu jigéen bi ñu fi reyoon njóobalaay te ñu jamoon ko juróom benn fukk ak ñeent jam-jamu ba moom lañ jot ne moo ko rey ñu ngi koy wër fa fay ñaari téléphone am yëpp kos almet dugg ci àll bi l'observateur na man li may laajte mooy lan moo tax léegi sénégalais yi di rey nit ayaw seetal bu njëkk ba sénégalais fa ragal dee te xalaatu ñemewuta sax rey nit mais léegi rey nit sénégalais fañ koo def rek ni jël ndox naan ñu seen xam-xam màcc ci xelu doomu aadama bokk na ca kaali ñaa ma ngay joxe xalaatam ci l'observateur nee na li ko waral mooy yëf yi ci kër gi lay commencé ñu di ko seetaan violence beeg ñàkk yar gi naka noona tamit ñi ñu tëjoon kaso bàyyi la ñu génn ñaaral ñooy def li ni mel ak bëgg bëgg xaalis te nangoo liggéey sàcc rek wala rey nit waaye ku xalaat ne bés nga ñëw yàlla rey la war ngaa mën a baña ray rey nit